ak jaamu yàlla la tabali tabali tabali makimi tabali makimi non au troisième mandat merci beaucoup gars votre tableau monsieur ou indi fii tey ci kaw palco bi Et sur ce, chers compatriotes, je suis venu en tant que de la représentation nationale apporter mon soutien au peuple sénégalais dans son combat contre les dérives autoritaires, la régression de nos acquis démocratiques, dans son combat contre l'instrumentalisation de la justice pour neutraliser des adversaires politiques comme mon frère Khalifa Sall du mouvement taxawu Sénégal candidat la war a doon comme mon mon frère mon cœur le frère Karim Meïssa Wade candidat la war a doon dafa war a leer Macky Sall ci sa comme mon fils Pros Ousmane dafa war a leer tous derrière contre les manœuvres en faveur d'une troisième candidature de Macky Sall vive le peuple sénégalais vive ñun vive ñun vive ñun ñun ñooy peuple bi je voudrais occasionner de cette tribune pour rendre hommage à mon mentor l'homme du juin, l'homme du juin, qui pouvait aujourd'hui en réclamer la paternité. Parce que sous Louane Barou Abdoulaye Watt, cette manifestation n'aurait jamais lieu. Merci le président Abdoulaye Watt, l'homme de la démocratie. Merci papa, le Sénégal vous doit cette grande démocratie que Macky Sall, l'homme de Tchado, veut briser duñu ko nangu dama ne Macky Sall troisième mandat dañ ko fi tere ci mim réew suul gaz du ko tere xeeñ pour ne pas imiter mon frère et ami Ahmed ma ne gars yi nañu àndandoo xeex Macky Sall lu dagan la xeex Macky Sall pour mu bañ a def troisième mandat lu dagan la ma ne moo tax tey ñun ñëpp nañu àndandoo wax rek non au troisième mandat te tamit nañu dimbala ngir yàlla ci nervi yi vous ne perdez rien nag waa opposition bi a attendre parce que gis nga su ngeen àndul yéen damay jàkkaarlu yéen wax leen ko su ngeen àndul laa wax su opposition Macky va faire son troisième tranquillement dem na la wi fële te kenn du ko faj non au troisième mandat gars yi non au troisième